allo alaykoum, euh, ma ñëw ci live ndaw di waxtaan ak euh, xale góor surtout parce que dama am problème ak yenn xale góor euh, le langage le langage pour aborder quelqu'un parce que gis naa ne tey dañuy des di sur les réseaux sociaux les gens nous appellent mais dafa am ñenn ñu bokk Sénégal ñoo xamante il faut ñu jàngal leen les bonnes manières Moi, c'est-à-dire nit ki boo ko boo wo téléphone dafa am noy waxe mom mu war am benn langage de soutenu bo xamantene dafa manqué yenn xali góor yi nek Sénégal moy l'éducation xam am nañ problème éducation ndax ñu bëri jànguñu école même bo jàngulee école y a le strict minimum jigen bo xamul na nga def yaangi doxal c'est quoi ça c'est quoi yaangi doxal jigen bo xamul euh, gëj la gis. Tu ne tu connais pas la personne comment tu peux dire que gis pas la la lolou <coughs> ci yar la bok te yar il faut que xalé gor yu bari génné ko ci ci langage en fait quand ils appellent quelqu'un qu'ils connaissent pas euh, ñu bu ko aborder wala ngeen di wo ben liveur live. xam ne da ngeen que ci internet bi peut-être neex na len dafa am no muy ne muy pas. asan Diouf mu ngi fi nek di wax tout le temps ñu naan wa day saaga day saaga mais asan Diouf ku respecté jigen la asan Diouf masumaa woowee maam saa yi ma ko woowee dama naan soxna si tellement que dafa ormal jigen gi Marius nya mi ngeen di gis ni say ma ko woowee ma sœur la may woowee du jaar sax sama tour tellement qu'il respecte la femme mais ñen ñi nga xamanté te dañuy sétane té pourtant ñom asan Diouf mënon na ma tutoyer mais duma tutoyer Guy Marius ne mënoon pas ma tutoyer mais du ma tutoyer mais ce que comprendre comprends, c'est que xam te ne xamuñu pas ni dadax ni dee mosuñu discuter wala benn yoon lay téléphone après je naa la gis namm naa la lu tax nga comme si attends. temps mënuñu on peut pas non plus parler avec les 15 millions de sénégalais a un message rek doy na ci message ça va neex nga ma on va répondre yu respecte, hein. quand ça dépasse les bornes on ne répond pas, on bloque. dafa xaat leen seen éducation parce que c'est très important tey boo leen fi naree ñëw ci Europe bi war a wut aborder tubaab boo xam te ne xamoo leen ko da ngeen commencé par dire yaa ngi doxal mais tubaab danaan kii fa ñu jógee amuñu yar amuñu éducation parce que tubaab ku mu xamul du ko tutoyer au fait da koy vous voyez nit ki boo ko xamulee dafa am benn retenue bu ndaw bu ngay am nit ki boo koy gis si télé wala nga koy gis si internet bi boko joté réellement dafa am noy waxee ak moy même Macky Sall ñun bëggu ko dé même bañ nañ ko tay buñ doon wax a Macky Sall buñ ko wowon téléphone duñ ko ne eh, Macky Sall da nga def yaangi doxal y a le strict minimum quand tu connais pas la personne xujja maa lay nuyu bu baax baax surtout xalé góor yi ñoo am problème boobu man j'ai ce problème là avec les hommes

Si ko ah même boko xamé sax même sama propre frère si ma néma est-ce que yaa ça, doxal sax ça me... daf day am lu muy wàññi ci man parce que dama naan li déjà commencé na may tutoyer té yeggaguñu fenn apprenez à respecter les gens si vous voulez qu'on vous respecte nit ki boko ko respectueusement nga pose une question respectueusement d'aller ton tout respectueusement y a des gens m'appellent je suis froide pourquoi parce que beaucoup leen ñàkk ça. mais niñ ma abordé c'est tellement mal poli ba ne je sais même pas je trouve même pas les mots pour le dire y en a un il m'a appelé hier waa euh, naa laa dégg ma ne ko ah, la mais est-ce qu'on a l'habitude de s'appeler Il dama doon wax ni gëj naa déglu say live xoolal faut you est-ce que c'est des mots qui se disent

bàyyi leen di woo nit ki nan kan ndax yaa ngi doxal nuyoo yu guddi aussi ça fatigue yow mun nga rek na nga def maa ngi fii yem na fa bonjour rek da yem na ci ko xamut soxlu yenn question yu poser yeex yooyu yooyu yooyu après est-ce que t'es marié mais si la dame elle est mariée ça te concerne pas xana sax même booy doxaan sax dafa am ni ñu doxaanee boy doxaan doo laaj nit ki est-ce que tu es marié du nekk rek dama la bëgg bu la bëggulee ne la bëgguma la mu jeex tak mais commencer à rentrer dans la vie privée de la personne lui poser des questions t'habites où t'es marié t'es ceci t'es cela am na xamantene xamante ne fi bu baax baax tafatin am na yo xamantene ne bu leen bëggee ñu respecter leen xali góor yi commencez par vous faire respecter vous-même d'abord ci wax ci langage ci lépp yi ngeen suñu président Ousmane Sonko lan moo tax kenn dépassé wu ko ci àdduna c'est parce que dafa am fu muy yemax nit yi ku nekk ku mu taxawal xam na nu muy waxee moom yi nga ko même fansam yi sax même ñi nga xam te ne dañ koy voteel sax du tutoyer du leen tutoyer Colette maa nuyu bu baax a baax moo tax dafa am président de la république nu muy waxee rek di nga xam ndax kii respecté na ay nit wala respecté wul ay nit président Ousmane Sonko. même ki gëna a yemamaay sax bu ñëwee taxaw di wax ak moom du ko naan ah na ngay doxale ak yooyu non non toujours dafa am barrière lool ci éducation la bok soxlawul ngay jàng am bac plus 10 pour am éducation tu n'as pas besoin parce que vous êtes appelé à aller travailler quelque part vous êtes appelé dara jomul kenn ci aduna vous êtes appelé à parler peut-être avec les présidents de la République d'autres pays

moo tax xale góor yi langage au fait même entre copains essayez d'avoir un un langage un peu soutenu Mam, ni mu mel ci page Facebook c'est ma page Facebook mais dans ma vie courante vulgarité dans la vie courante ñëpp xam xam nañ ne maam du tox sax bay wax gros mot dans la vie courante quand je veux râler je râle sur ma page mais dans la vie courante je suis là parce que beaucoup de gens yéen tamit boo leen bëggee jigéen ñi respecté leen boo bëggee liveur yi respecté leen boo leen vous benn liveur mu waxtaan ak yéen respectueusement quand vous l'abordez vous l'abordez respectueusement mu tontu leen respectueusement sinon boo leen ma ko prochaine fois j'en ai raccroché des gens au nez parce que du bokk samay habitude mais pour ne pas ma tontu leen tontu bu gëna ñak ñàkk kersa damay raccroché au mais arrivé à un moment

tata Colette bi ba jël téléphone sama téléphone diko wo diko diko poser yenn question yo xam te déplacé je trouve ça déplacé au fait vraiment déplacé ah nit ki boo sekkul ak moom waxtaan c'est pas parce que jot nga ko ben yon téléphone rek que vous êtes des copains copines wa gëj la laa wa waaw ci lo nek comme si tu es avec les gens comme si moi j'ai l'habitude de t'appeler lo na moo nekk les plus grands mythomanes mooy ben yon nga jot maam wax nga wa koñ bi mom de maax maam dañuy wootante amana sax amna ñoo xam te nañ ne waa man ma maam sax dañuy génn de parce que ki ma gis de mu woo ma noonu téléphone rien que la façon dont il a parlé il était avec ses copains maa ngi dégg ñuy wax ci suuf gëj naa laa dégg gëñ nga maa woo ma ne ko mais attends arrivé à un moment ma ne ko je pense que tu t'es trompé de personne mu ne ma déedéet ma ne ko parce que maa yow c'est ku ñu wootante c'est quoi le problème gëñ nga maa woo mu ne non dama bëggoon wax ni gëñ naa dégg say live après vous vous ridiculisez pour rien du tout Si vous bëggee Macky Sall respecté leen un ministre respectez-les. boo leen bëggee seen député respectez les da ngeen di respecté seen bopp ba pare ci langage si leen di wax ak nit yi téléphone la femme nooy waxee moom la façon dont elle râle sur internet ce n'est pas la façon dont elle a son téléphone et qu'elle parle Moi Macky Sall bu téléphone duma ko woo nekk ndax yaa doxal non je passe direct au but wax ko lima metti lima nakari li ak li ak lii la doxalul dafa wara ablé able même dafa wara ablé bi aussi je vais pas le lui dire comme ça dafa am ni ñu koy waxee xaarim maa ngi nuyu bu baax ànd ah, ndey sini tay respect bobu il faut ngeen jàng ko fii tubaab bi nek ci mbéd bi sax bu rombee SDF bi fanan ci mbéd bi du ko ne est-ce que yaangi doxal da koy vous voyez tubaab bi nga xam te da nga dem ci hôpital amo dara nga nek SDF wala ya gën a ka len leen bo ndóol ci hôpital ba kalay ak yi dalay wax madame vous voyez vous voyez ormal nit ki ormal ormal loolu lañ leen ñaan ormal ormal respect le strict minimum de respect lool rek lañ leen ñaan on vous demande pas grand chose à part ça Sénégal ñoko bok li na Karima mo len na li ñuy dund ñoo dund suñu mbokk yi nekk dëkk ba ñi buñu ñu duñu reer dañu bu ñuy euh, prix ba seen yaay yi di fay courant ñun prix bobu la suñu yaay yi di fay courant on a les mêmes problèmes mais c'est pas parce qu'on a les mêmes problèmes qu'on doit se tutoyer non un peu de respect au fait lool rek lañ leen di ñaan un peu de respect après on va arriver à un moment mam du jëlati kenn téléphone ñu ne dafa fuuy ndeysaan live la dafa fuuy fekk ni ngeen di waxe maam moo ko neexut té bëgg leen naa ñàkk un peu de respect, un tout petit peu de respect au fait respect vous parce que nous dañ respecté respectez nous nañ torop torop torop donc nous nous téléphone nous jël temps nous suñu décroché suñu téléphone pour wax au moins wax leen ni lu Nullez-nous respectueusement, au moins, c'est le strict minimum qu'on puisse vous demander. Ayang c'est pas correct au fait qui c'est pas euh, pas votre problème non plus ce que je fais toute la journée c'est pas euh, euh, c'est pas votre problème parce que on ne sait pas de la vie de quoi c'est fait ki ngay woo di ka naan yaa doxal bu fekkee yow amo liguey peut-être suba mën na la trouver liguey mais boo commencé par lui parler mm, euh d'une manière déplacée da nan ki dafa incorrect defaraat len ni ngeen di waxee sen langage yenn xalé yi defaraat leen seen langage parce que yéen yéen a représenté le Sénégal de demain yéen yéen yéen euh, tay mën nañ leen yobu ci ay centre d'appel téléphonique ngeen fay liggéey dafa am langage bi ngeen wara utiliser langage boobu nag d'un koy dañ koy togg dès à présent Boko ko amulee bu demawee quand on va te donner un travail où tu es censé répondre aux gens au téléphone doo ñëw dina client yi ndax doxal même client bi loo ko xam mille ans cent ans cinquante ans il faudra que nga am barrière barrière dafa baax mooy ñi ngeen di ñu ci internet bi Assane Diouf pourtant quand il est là il parle de naan qui ne respecté wu mais tay ni mu respecté ku gëna respecté jigéen Assane Diouf bëriwul de Sénégal assam Diouf limay limay nek ci réseaux sociaux yépp saa moo joté soxna ci la wax soxna ci mosul wax sama tour. tellement que dafa respecté jigen tu sens que barrière bi dafa def barrière bi tout de suite là waru ñu dépasser yenn yi Guy Marius Sagna aussi pareil Jaraaf pareil

muy Fatou mu nek Fatou euh, Fatou Danso mu nekk Sonko Doma on a un respect bu fi fii même Aboubacary li ñuy ne Abou Aboubacary lu muy nek ci internet bi yëpp yenn saa mi wax ay gromo abou bakari bu ko téléphone day mel ni ne sa du beneen def nako ba sister rek lamay wowe jamais mu jaax sama tour donc ce respect là nga xam te ñun dañ ko am entre ñun liveurs yi même si on se crache clash des fois respect bon non, aussi ci internet pas tout le monde il y a des gens euh, Mamadi Amdi euh, on se respecte beaucoup euh, Mon tamit si se réclame. mais il faudra que ñu encore ni ñuy waxé aussi pareil hein. on s'éclate mais toujours dans le respect

lu ñu métti ci par rapport à leur langage par rapport à leur comportement par rapport à ni ñuy doxalee dëkk bi léegi ñun ñi war jël récupérer dëkk bi doxal ñun il faudra que ñu wut benn langage soutenu boo xamante ne fu ñu taxaw dinañ ne kii moo nekk ci ñu baax ñu bëgg récupérer dëkk bi ki mo nekk ci ñu bon ñi nga xamante ne ñoo yàq dëkk bi parce que c'est bien beau ñu leen di critiquer ñom mais ñun ñi nga xamante dañu bok ci opposition parce que j'espère que ñi may wo né ma ñaa doxal j'espère hein. je pense hein, que ñoo bokk lu ñuy xeex à ah, moins que mu nek wa APR yo xam te ne dañu ñëw ñuuxu peut-être aussi lolu mais même bu nekkee wa APR yu ñuuxu aussi même boy ñuuxu sax nga ñuuxu nit ki respectueusement parce que euh, Awa Macky je l'ai au téléphone bima ko commencé jot téléphone c'est depuis la semaine dernière respectueusement lañuy ñuy woo wax la waxtaan def naa ko ba Awa Sonko la kay woowee mais il n'y a jamais de manque de respect respect de femme, importance au fait te l'ol il faut que ngeen cultiver ko boo leen bëggee yegg fu sinon bu ne dañu nar a dem fu sori ne on on ne se respecte pas on ne gagnera aucun combat tout doit se faire dans le respect donc euh, loolu moo nekkoon me crie du cœur le matin parce que fa nekk loo xam est dama ko ko ko Félix Malinu, ngi bu arrivé à un moment il fallait que me me prouve ko may profito di wax wa APR que ça ne vaut plus la peine que vous m'envoyez des vidéos Yo xamante ne que je xxx Lolu, mon leen ma ci traumatiser parce que je suis ni France presque 20 ans nga gis nga fekkee jamono cassette ba si ñu ne clé USB Koko amatoo leen dara lo leen koy ci xxx kon ñaan plier bagage mo gën ngeen traumatiser le peuple avec des choses yo xamantene ça ne nous mène nulle part à part ça. Je vous aime beaucoup. Je vous respecte énormément. Des fois, il y a des mots déplacés. Vous xam te de manqué wax bu gagnez, nit vous blessez, nit manqué c'était pas le but c'est des accents qu'on met peut-être qu'on est littéraire dina xam ne ça, yenn saay accentuer ci mot ça touche c'est un peu pédagogique des fois, les gens pensent que je suis vulgaire. Je suis loin d'être vulgaire. Je veux tout juste mettre l'accent là où ça fait mal. Mais vous passez y quand je tourne la page je tourne la page je ne suis pas là pour diviser les Sénégalais je ne suis pas là pour diviser ni Nek Pastef ni qui que ça soit par contre quand ça va pas je le dis après je passe à autre chose parce qu'il a le dafa def ma nek ci dëkk boo xamante ne fii nit ki bu la tooñee da nga yuuxu ne tooñ na ma doo jël di ko denc xol nit ki bu defee naka pas di la directement peut-être am na ñoo xamante ne dañ koy jëwee ay nit man yàlla xëy na daf ma je préfère le dire maintenant devant devant la personne mu xam ne man lii moo nekk sama xol que may dugg ci ay rukku di ko parce que fi dañu amul sax nit ku ñuy àndandoo di jëw Motax quand j'ai quelque chose qui me fait mal je le dis après je passe à autre chose bi ma amé tamit li ma ci wa Pastef je l'ai dit ils m'ont répondu respectueusement parce que jox nañ ma page bindal nañ ma tay lettre Né ma ne képp ku inscrire ci sen page fay te jotul kartam té mu jaaroon ci man Na leen jox données yi di dinañ ko lijjante mais si j'avais pas râlé, peut-être j'allais pas avoir ça. Mais ils m'ont répondu respectueusement te maa leen aussi di leen ci gërëm Wa parce que tant que nous jël rek bind pour répondre respectueusement rek man ça me touche mu mu mu Tamsir Tamsir moi j'ai jamais eu de problème avec lui il a toujours été correct et je vois qu'il est correct jusqu'au bout et que l'imi aussi mu ngi ci Omar Sakho maa la nuyu bu baax a baax li muy xeex mu ngi ci xolam nekk na koo xam ne il est en arrière plan mais lépp lu muy def da koy teg jaarale ko ci yoon lenn rek laay wax président Ousmane Sonko France nit yi bëgg nañ carte de membre benn machine lañu am doyut benn nit mooy defar samedi dimanche bu wàccee liggéey doyut président Ousmane Sonko ay millions de personnes on a 50 000 électeurs en France si vous am le maximum de membres qui adhèrent au niveau de la France il faut augmenter les nombres de machines avez le nombre de personnes qui nga xam te carte de membres, yi ngir yàlla ak yonent bi ba vous avez ku joxe sa carte tey fin de su ku def demande bi tey une semaine nga jot say carte loolu lañ lay ñaan président Ousmane Sonko nga jóg ci parce que vous rafetul ay nit toog fii soxla carte de membres di xaar ay mois trois quatre mois bala ñam carte de membre parce que à côté amna ay parti politique yo xam te ne ku bëgg tay carte de membre le lendemain ñu défaral lako jaay lako ko ñenn ñi sa dañ koy may. ñu ngi dem ci municipal on a besoin d'avoir le maximum de membres kon président Ousmane Sonko ñu ngi lay waxat encore boo mënee yok carte machine yi di défar carte de membre au niveau de la France pour que nit yi mëna a gaaw jot sen carte de membre dina neex militant yi torop torop torop torop torop parce que tay carte de membre pastef mel na ni diplôme ci euh, ñi nga xamanteni dañu bëgg adhérer pastef 50 000 électeurs on a que 1900 ou 2000 militants là-dedans c'est largement insuffisant tay normalement 25 000 électeurs 25 000 électeurs euh, votants yi que France waron nañu mëna bok ci pastef 30 000 yi waron nañu mëna bok ci te loolu bu atteindre cet objectif là il faudra qu'on mette en place plus de machines pour faire les cartes de membres loolu nak sama cri de cœur la bokk ci limay joy le matin parce que tay succès la ci man à chaque fois ma gis ay nit né dama bëgg carte de membre passef ñu defaral faire ko à temps et à l'heure ni ma neexee ba ma sama carte de membre ñenen ñu bëri ñu ngi xaar tay pour jot sen carte de membre parce que pour ñom loolu challenge la ce n'est c'est pas donné à tout le monde Il bu la le et à l'instant T bul bàyyi ba parce que demain il va y avoir d'autres politiciens qui vont venir ils vont ramener autre chose rien n'est acquis ce que ce qui est acquis aujourd'hui il faut essayer de faire en sorte que nous maintenir le cap que nous militants nous maintenir ba nga après vous allez me dire qu'ils sont ils peuvent avoir des cartes de membres et ne pas voter safe. Mais nous, on s'en fout. S'ils votent pas PASSEF aussi et que on a les 10 euros qui rentrent dans la caisse, on n'est on pas perdant à 100%. Mais l'OLUIP, ça se travaille. On a un programme, on a des militants. Il faut respecter ces militants-là. Je sais que nous respectons les gens mais nous avons une carte de membre. Rambi Goudouna. Il faut qu'on travaille d'une manière plus efficace et que ça aille vite.

Fini. mais succès bu rëy a la ñu am militants lolu moy on a gagné la plus euh, grand euh, le plus grand de notre combat Fi France buñ fi gagné bëss bo gagné fi bëss bo fi Bo boo wanee Macron que ne yow militant France yépp votant France yépp yow lañu andal. bo rombé Macron tapis rouge la lay defaral lolu salange la. Tay ñu ngi France dégage ñi ñu ngi naan Auchan dégage mais ci dëkk bi nga xamantene Tay ñun won nañ ni ñun moo ñu noot Tay. notre objectif c'est d'avoir le maximum de militants de PASTEF qui résident en France lool boko forum forum tuba bi lool preuve le au fait pour que ñu mëna euh, tek ci monde bi qui nga xamantene ne moom nee nañu ñoo imposer président de la république nous avons fait la France, nous avons imposé président de la République. Pour moi, nous là, 50 000 votants en France, nous avons 30 000. Ben, président Ousmane Sonko, au cas où tu ne le saurais pas, nous avons fait nous avons nous village, de avons Quand on vote, d'habitude c'est le dimanche, c'est le bus. Macky Sall, pour campagne électorale, pour le jour où vote, moom day yónni bus ay militant wam pour ñu dem votel ko fole Orléans parce que du am bus buy def Orléans Paris Orléans Montargis ñun votant ñun ñi nga xam ne dañuy votel président Ousmane Sonko bu ñu amulee oto du ñu mën a dem voté kon dëkk yu mel noonu war nañ leen mën a gëstu moo tax may wax tout le temps que ne dañu war a répertorier suñu militant yëpp bu ku ci nekk ñu xam fa nga dëkk est-ce que jour vote bi est-ce que vous avez am obstacle pour lay nga voter euh, euh, les élections se préparent Vous vous voulez gagner élection minimiser un effort parce que tu me dire non vous êtes en France fi amna ño des amuñu vous amuñu passe de voter la il demee Mantes-la Jolie da de ay bus a le Miro de l'indigène bus boo le montage de l'indigène bus Laay Wade aussi faisait pareil je ne sais pas si vous êtes au courant mais l'IWAD faisait pareil aussi il allait chercher ses militants pour qu'ils aillent voter parce qu'il sait que dans certaines villes il n'y a pas de bus le dimanche kon tey buñ ci tolloo ñun dès à présent liggéey coordinateur de France c'est très important parce que poste bi du da ngay jël poste di dem ci télévision yi di tooga da nga wara am cartographie wu France yépp fa nga am militant nga jéem a sax cartographie votant yi nekk France yépp pour xol ban ville mo gëna ëpp ay votant nga am ay objectifs yo xam te da nga atteindre pour que mu nga mën gagner campagne électorale lolu tay président Ousmane Sonko mënu ko parce que mu ngi Sénégal mais ñi nekk fi ini loolu dafa wara a bokk ci seen ne faut pas qu'on y va à la l'aveuglette ñi fi gagner ay élections yëpp demuñu à l'aveuglette Macky Sall dafa am ay numéro de téléphone aux am Macky Sall dafa am seeni adresse dañuy organiser seeni yendu Ñom dañu jël sen dañu soudé wu pour gagner des élections présidentielles en fait PS ils ont pareil c'était la même organisation moto ñom seen voto seen électeurs yépp dañuy voter ñun ñoo am benn organisation boo xam dafa xaw a des bu ñu war a gën a renforcer waxuma ne defoo leen lu baax de mais il faut ngeen gën ko renforcer pour ñu mën a gagner président Ousmane Sonko dans le palais moo nekk objectif bi dans le palais objectif boobu bu ñu atteindre ko dafa am travail bu ñu war a def dès présent te loolu yéen ñi nekk sur place yéen naka ko war a def élection yi passé on a perdu dëkk yi mel ne ay Elbeuf waa Pastef demuñu fa woon man am na ñu ma fa xam ñenn ñi Idi lañu mujjee dem votel parce que Idi amoon na ñu ko fa toogaloon Macky Sall am na ñu ko fa toogal mais dëkk yooyu noonu même ñun bu ñu amulee ñu ñu fa toogal dafa war a am ñuy déplacé wu dem ba foofu wax ñoom xool yan obstacle la ñuy am pour voter est-ce que Elbeuf la ñuy voter wala dañuy dem ba or dañuy dem ba Rouen bu dee dañuy dem ba Rouen ñu xool jour vote bi parce que nit tamit yenn saa da ngay tayal dimanche il faut nga motiver nit pour mu mën a xëy ne dimanche bii damay bàyyi sama yitte yëpp dem voter mais ñooñu pour nga xam obstacle boobu il faut que vous allez vers eux pour mu am. ça nécessite des moyens moo tax ñenn ñi bu ñuy xeeb suñuy dërëm dërëm dërëm man ne leen dërëm bu war a dugg ci kees bi waruñu xeeb dara parce que dërëm boobu noonu demain moo leen di servir pour que nit yi mun a dem voter campagne électorale loo am du doy parce que ñu mel ni ñu dëkk ëlbëf war a dem Rouen dem voter bu ñu amulee bus duñu dem voter ñooñu tey il faut passer defal leen fa bus wala ñu organiser covoiturage ñu nekk montargis bu ñu amulee oto te amuñu covoiturage duñ dem voter il faut organiser ak yenen dëkk ak yenen dëkk yenen dëkk loolu yëpp ça nécessite des finances au fait finance yooyu yëpp mu waroon génn si ñun suñu caisse ñun wa passef motax mané ma leen ñi fi nekk dañ leen wara a carte de membre 10 euros yi dugg ci biir buñu joxé plus mu nekk en plus luñu am doyut parce que campagne électorale, aussi bien au Sénégal que dans la diaspora, ça nécessite des finances. Élection, ça nécessite des finances. L'eau, il faut qu'on s'organise le maximum possible 125 millions rek tour de la campagne électorale il faut que nous renforcer tous les moyens sont bons pour que nous renforcer un milliard d'euros. milliards il faut voir grand ku bëgg a présent de la ku bëgg a présent euh, président Ousmane Sonko ci biir palais bi Ibrahima maa ngi nuyu bu baax il faut qu'il voit grand Comment c'est le rôle grand grand grand arrêtez de voir petit il faut être ambitieux di nga am ambition du nelaw nelaw yu gudd yooyu noonu moo na ngeen gis maam di leen yee yenn yenn n'importe quelle heure parce que ambition bi la vouloir quand je veux quelque chose, je mets le paquet, je mets le paquet, je mets le paquet. Il y a, ça limite, c'est de l'harcèlement. Mais c'est parce que je sais ce que je veux. Mais comme si on veut vraiment ramener le président Ousmane Sonko dans le palais, il faudra qu'on réunisse tous les moyens. Il faudra que nous nous nous, nous nous, nous, nous nous, nous nous, nous, Nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, Nous nous, nous, nous, nous, nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous sensibiliser nous, y a pas un mini militant chaque militant est important parce que ben voix mën na la tere nga président de la république ben voix mën na tax euh, ñu baña a dem ñu euh, ñu dem deuxième tour ben voix mën na tax ñu ajourner ñu Macky Sall mën ñu fi tégalat encore des parrainages Tay parrainage yooyu noonu si on a nos militants déjà répertoriés et que ñu yokkal le maximum xooleen mail yi ngeen di envoyer groupé on a les mails maintenant tout le monde ñëpp ñu nekk membres enregistrés ont des mails euh, qu'on reçoit sur nos boîtes mail imaginez-vous vous faites qu'un ñu bëgg président Ousmane Sonko Vous nekk ay militant tey envoyé nañ leen mail ne en une journée vous nañ def suñu parrainage avez un ko campagne électorale bu mail vous avez envoyé ku ci nek wax la Vous obstacle yow nga jot nga xam ñaata nit ñoo am obstacle ak ñaata nit ñi nga xam te ne mën nañu yobbu dinañ dem voter et que c'est sûr mu am ñi ñuy jël woo leen ñu wax leen ñu accompagner nit yi ba nga xam te ñoom ñëpp nañ dem voter c'est du travail hein. liggéey boo xamante la il faut que nit motivé dëgg dëgg dëgg nee naa la Anne Hidalgo bu gañee élection yi passé c'est pas parce que da doon tëdd di nelaw ay militant wam sympathisant wom ak ñi nga xamanteni ak élu yu ci porte à porte jusqu'à 22 h 23 h ci mbedd bi di à nit yi di len wax di jox ay flyer di wax ak yi expliquer kan moy Anne ban programme la am ba sensibiliser nit yi tax mu bu ñu nelaw tok duñu gagner. Europe mel comme Afrique ñepp xamanté wuñu tay mu nek dix-huitième waron nañu mëna a dem ay 18 huitième taxaw ci porte de métro bi sénégalais bu génn nga tok accosté ko jël adresse am fu mu dëkk lépp ya bu bëggé carte de membre nga jël numéro téléphone défal ko des journées de porte euh, nu ñu koy porte ouverte dans le dixième foyer des def ay journée porte ouverte dem ci foyer yi xol nombre de sénégalais yi fa nekk Ce foyer bu Qui ci le nombre de sénégalais yi ñuy sensibiliser bu ñu demee xool foyer peut-être 50% pour cent yi président Ousmane Sonko lañuy andal bëgg ngeen carte de membre waaw si vous n'avez pas les moyens on vous le donne mais au moins dinañ def en sorte que adhérer le maximum de Sénégalais c'est en adhérant le maximum lañuy ñuy gagner élection yi mang ngi leen di nuyu yeen ñep di leen sant les signes mang lay ziar bu baaxa baaxa baax Omar baax Omar Bandian euh, bàyyiwuma kenn. Euh, ne leen nous décourager parce que à chaque fois qu'on parle il y a des gens qui ont te état nous nous des adhéré maman Rosa bu a euh, donc il faut que ñu une morale bu dur il faut qu'on soit dur avec nous-mêmes aussi et exigeant parce que si exigence que nous ñu gagné. Il ne faut pas nous dem waxuma nous suñu aada dafa bon mais dafa am lo xam dafa bok suñu aada mu nek négligence dañ ko wara jël ko il faut qu'on soit rigoureux dans le travail qu'on fait rigueur rigueur rigueur boo rigoureux au final da ngeen am résultats. Euh, ngeen am résultat il faut pas être renfermé il faut être ouvert yay Fatou Samb maa nuy bu il faut que ngeen ubbeeku il faut que ngeen accueillant parce que ñun dañu soxla ay nit ñu ñëw ci parti bi il faut qu'on soit accueillant il faut qu'on soit présent ñu joxe ay numéro yu bëri yoo xamante ne ku woo kii jotu ko peut-être na am chance woo kële wala kële wala wala ngeen def permanence sax c'est-à-dire bu dee lundi kii mooy joxe numéro am kii ngay woo lundi bu dee mardi kii ngay woo mardi bu dee mercredi kii ngay woo mercredi comme ça na permet ñeneen ñi souffler au fait Vous de nit am renseignements précis. renseignement précis bureau bi ba numéro à appeler lundi numéro à appeler mardi numéro à appeler mercredi comme ça faire bëgg renseignement peut-être bu vous lundi Aliou Sall day mardi bu ne le du vous avez la que mercredi bu Vous day ainsi de suite parce que les gens n'ont pas le temps Défaire carte aussi on peut pas attendre quelqu'un qui travaille toute la semaine pour me defar carte le dimanche c'est pas possible à ce rythme là on n'ira pas loin il faut ngeen xool koo xamante ne du liggéey samedi muy defar carte ñu jox ko pour muy defar samedi mu am koo xamante ne mercredi euh, vendredi ainsi de suite jour bu nek, ñu ne diw mooy defar carte yi jour boobu noonu jour bu nekk ñu ne diw de faire carte jour boobu non. ainsi de suite c'est une organisation en fait yaay Fatou maa lay bo ba, baax a baax merci beaucoup organisation boobu non. parce que c'est inadmissible ñu ne la ne mënuñu defar parce que ben nit mooy defar tey moom bu samedi rek lay lay am disponibilité vous n'allez pas me dire que dans safe amul ñoo xamante ne yeneen jour yi duñu disponible ñu def benn bureau boo xamante ne diw mooy xëy si lundi diw mooy xëy si mardi diw mooy xëy si mercredi ki diw mooy xëy si jeudi wala diw bu amee une heure de temps yoo xamante il travaille pas moom moo war a ñëw tëyee permanence bi ñoo defar carte jour boobu noonu kii defar mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ainsi de suite comme ça carte yi day pare dina gaaw sax dina gaaw bu fekkee ne on n'a pas les moyens de s'acheter une autre machine ñu def nonu mu am koy defar lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ci biir Pastef amna ñoo xamantene liggéeyuñu peut-être actuellement wala dañu nekk en congé ñu faire un volontariat comme ils sont en congé chaque jour nous devons defar carte dugal ko ci machine bi ñu former leen bu ñu def ko ci enveloppe c'est tout juste une question d'organisation même avec une machine on peut s'organiser, mais de telle sorte qu'on le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, les mais c'est tout juste pour que nous nous dans ce qu'on fait. Parce que c'est inadmissible. Comment je il y a 6 mois, je a carte de membre. Je suis je suis rousse. a 10 euros récupérer 10 euros y trois fois ci site chaque jour jotaguma dara dara et pourtant elle est toujours motivée et man yenn saa sama naan ndeysaan du ma so décourager parce que am ñoo xam te borom ñoom dañuy décourager mais ba légui mu ngi motivé motivé motivé ba nga xamante ne genre yoy il faut que président Ousmane Sonko xamné ñi bëgg nañ ko parce que ko xamante ne fu nek fo dégg ne fi buñu fayé fayee nous carte de membre yaa ngi fay fay ta joto yaa ngi xaar dans l'espoir de l'avoir un jour Coco, elle mérite sa carte de membre bonne journée tout